www.sangatv.com daanaka benn ponk la yéene kaay yëpp xëye mu di lamb ji amoon démb fale ci stade Léopold Sédar Senghor l'observateur xëye ci nii mu di boobu les euh, la kii di Modou Lo wan na boppam Lac de Guiers ci gàttal li mu bindu noonu lañ ko mën a euh, fe euh, kon faram-fàccee ci xëtamu njëkk lu aju ci Modou ak ay kàddu yoo xam ne yëkkati na ko yéenekaay yu bari dellu si ci bokk na ci li wax ci l'observateur jamono ji nga xamante ne ji Lac de Guiers téye na tànkam ñu bëri jàppoon ne combat ba fa lay yam bi ñu laajee Modou Lo noo def ba génn ci lii la tontu nee na ay ree ko defoon dafa mel ne ku nekkoon entraînement moo tax euh, yëgalu ko sax yaramam Lac de Guiers ne arbitre bi dafa waroon dem ba ca kanam bu ko defee ñun ñaar ku ci daan kon ñu xam ne yow yaa daan Le Quotidien moom xëy ko simple la lot de consolation Lac de déception lii la bind ngir kon euh, résumé le combat bi ak ni mu demee Vox Populi gis ne Modou Lo dafa demoon ëppoon doole dafa xarañoon lool Vox Populi moo gis loolu dafa xarañoon lool ci ki nga xamante ne ji moom moo di Lac de Guiers victoire bi am na ndam mais ci ay avertissement ak ay kurpañ yu mu ko dóor ba mu génn saako yi foofee kon la ndam amee ci gàttal daal xarañ gi moom matoon na sëkk source a moom gisul ne xarañ am na fa li mu gis mooy Modou Lo am na ndam ci kaw Lac de Guiers 2 waaye xarañte gi na ko faa wane moom loolu la gis ci boobu le combat beneen yéene euh, yéene kay li mu jàpp ne combat démb bi combat la bu saful xorom saful suukar ci gàttal gu euh, inachevé ndax amateur yi li ñu doon xaar kon gisuñu ko sunu lamb xëy tegal lamb ji ci xëtamu njëkk boole koog bile photo mi ngi nii arbitre bi di yëkkati loxo Modou Lo ngir wan ko ne ko am na ndam yéene kay bi nañu noonu la combat bi mujjee diggante Modou Lo ak Lac de Guiers 2 record moom it loolu xëy mu di boobu le combat ak kaddu kàddu yoo xam ne Modou Lo yëkkati na ko ginnaaw combat bi mu dafa meloon ne dama nekkoon ci entraînement loolu moom Modou Lo moo ko wax Pape ñu wax ci leneen lu bokkut ak làmb mu di li xewoon ca Casamance ay taxankat yu ñu faatoon fële ca Bofa ak ca Bayot yéenekaay bi dellu siwaat ak ñun ci enquête bi nga xamante ne ñi ngi ko ciy def benn waaye bu ñu ci jàpp ñu ne la di René Capin Bassène enquête baak la feeñal loole lépp libération xëy na ko teg ci xëtamu njëkk leneen lu am réew mi quotidien dellu si ci mooy dégg nañu keroog àjjuma ñu ne dafa ñeenti touriste espagnol yoo xam ne dañ leen a dogale ci àllu Casamance bi ñett ñi ay jigéen la violé bañ ne docteur da leen di seet dañoo bañ kenn ki moo nangu te bañ ko xoolee gisuñu fa sax lu niroo ak viol wax ji sax mu gi yéenekaay bi nañu ministre bi xam leen ne jóge nañu Sénégal dem nañu Gambie toog ñu dellu si Sénégal ak faramaçon yi nga xam ne ñoo ngi tëkku réewum Sénégal ci laas la nekk lu aju ci meeting bu ñu bëggoon amal mu di waxtaan ñu tere leen ko fii ci réew mi yéenekaay bi nañu moo waral ñuy menacer Sénégal Sud Quotidien ñëw ñun ci école beeg université yi nekk ci jafe-jafe jàngalekat yi fas yéene soobukoon ci ay grève ak i débrayage ndax ñàkk déggoo seen digg ak nguurug Sénégal Diafra Sakho ren ren lay football yéen a kaay bi di moo ñu ko wax xëy ñu xamal ne kon jugee na fële ca West Ham moom Diafra euh, mi ngi kon fële France di fa football club bi nga xam ne fa la Abdoulaye Diallo ak ñoom Ismaïla Sarr nekk l'observateur gën ci sore ci xëtamu njëkk ndax xamal nañu ne moom l'observateur kii di Diafra Sakho 6 milliards kon dañu ko jëndee ngir contrat bu ñaari at ak genn wala papp des ba léegi ci l'observateur jeexale fa benn xale boo xam ne yàlla da ko natt mu am doom bu handicapé xam naa yëf yi nag da koo da koo metti tax guddi daal la yee xale bi dem sànni ko ci teen ba Pape voilà merci Mamadou Mohamed Ndiaye ñu ngi lay gërëm bu baax replay bi ci YouTube bi sinon ci diggu bëccëg bi di nga dellu si waat ci télé bi euh, ci journalu rédaction bu télévision Futur Média boori 13h nga àndaat ak ñun ci euh, revue de presse bi.